asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatu tey bii nga xam ne moom mooy altine juróom benn fan ci weer bi nga xam ne moom mooy mois d'août di weer boo xam ne wax dëgg yàlla weer bu métti la ñu ci am mbégte ak contentement bu mag. di remercier bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan seen émission Kouthia Show ka nekk ca ba di tonton mag mi nga xam ne mooy ñot di kaddu gi boole ko jëmm ji daal di koy sànni ca centre de modulation centre de modulation ba jox ko émetteur ba émetteur ba wàcce ko seen portable wara mu wàcce ko fi nga xam ne moom mooy seen internet wara mu wàcce ko seen kër ngeen ko mën a seetaan may am mbégte ak contentement bu mag ci li ma jàkkaarloo ci ñi nga xam ne ñoo may seetaan waxoon nañ leen na ne juma buñ fiy jugee ne lii nga xam ne mooy xaal bi te ngeen gis ko tey fa yéene nañ ci génte génne kéemtaan maanaam lu ñu neex mën nañ ko ci génne lu waay bëgg rek wax ko en direct incha allah ñu génne ko ci ndax bu fekkee ne da nga nekk oustaz wara nga nekk kilifo dem jàngat alxatimi ñibbisi ay taalibi dugg ci rajo bi di la dingat ak ci cele bi di la dingat ñi naan day def diw ñi naan day dem ci restaurant ñi di yàq der ñi naan oustaz nuisette yi nga xam ne moom nga commandé woon di jéem a sama der ñi naan oustaz bi xamul dara kon tey yaakaar naa ne ku jël ab xaal daa dee cee fas yéene def ab kemtaan kon waxtaanu koor ci yor yoru koor su ko defee ñuy am ci ak kon ti contentement di leen xamal ne diggante barbuut ak ba batarbuut ndax barbuut ak batarbuut ñoom ñaar dañu dem ba ci biir téléphone yaa ngi noonu tonton mag mën nga ko bind ci ñi nga xam ne ñoo ko bëgg xam ndax dañuy sonal trop bu direct bi jotee ñu xamal ne nag émission bi direct la ñun bu ñu yoree suñu téléphone yi boo leen ci wootee dafay feeñ kon soxla ngeen di woote jaar nañ ci ligne yooyu waxtaanu koor ci yor yoru koor alxatami tontoom ak batarbuut ak barbuut wax naa la ñoo bokk benn ndey waaye bokkuñu bàyyi ndax barbuut dafa def ba ci biir daa dee jox bopp ki nga xam ne moom mooy alxatami ne ko yow alxatami alzuuli zaana wa tarki la zuuli maanaam gëm naa ne sama njabar bii ma yor dootul faj aajo yi yow mii yaa mën a faj aajo yi yow alxatami téléphone yi ibbi nañ ko de ci su ko defee ñu boole ko mu nekk ci waxtaan bi di ziar sama benn taalibe bu ñu naan Kara. ak Mata Mata nag moo yor daayira bi nga xam ne mooy jigéen ñu mbootaay nekk ca Grand Dakar yëpp kooku xaritu Habib la jigéen la boo xam ne wax dëgg yàlla nee na ma Abou Bilal su may wax ak yow ci téléphone sax may lox ma nga ca aéroport ko yàlla defal jàmm kon képp ku nekk taalibe ca Grand Dakar mën ngaa dem bindu ji si soxna soosu tonton mag batar buut ak bar buut bokk benn ndey waaye bokk ñu bàyyi <laughs> ba bater buut ak bar buut ñoo bokk benn ndey waaye bokkuñu bàyyi buut moo leen séparé kee batt la sant kii buut bat bat buut buut ba bater buut taxawee nag ne ee eh, alxata alxatami gëm naa ne abu bilal bii topp la topp la ci ne ndax Sénégal la jóge ba fii pour ot xam man mi yor ay xërëm man mi yor ay njabar dootuma defati njabar ak xërëm sama mag bii nga xam ne ñoo bokk benn ndey te bokkuñu baay dama koy won ginnaaw yow ma topp la yàgg Abu Bilal ndax yow yow alxatami man batar buut jox naa la bopp boobu bar buuta nga mer batar batar bar buut ma nga mer bu leen fàtte ne bar buut moo ëlbatiku jox bopp alxatami batar batar moom moo mer batar batar daa mer bu fekkee ne am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum waaw. allo. allo waaw na nga def. allo. allo way waaw ñu ngi lay dégg yaa ngi en direct. allo. Assane Kaye. waa génn leen ko en attendant muy set kooku su ko defee. waxtaanu koor ci yor yoru koor. Batar Buut daa dee ànd ak alxatami ñoom ñaar ñu daa dee jàppante ma nekk ci digg bi. boobu ndekete bar buut mer na batar batar mer na te la batar batar daa dee taxaw ne yéen ñii dinaa leen soppi man sama njabar laa yaakaar yéen ngeen yaakaar seen xam-xam doo leen dara daana koy wax ci arab ne ko zuumi wa zaanaani <laughs> wa ziimalan kaana ale kal wiila kal tari kal zuuna wala mal kal ka maanaam ngeen xam ne xërëm moo mën li ngeen am tey ngeen xam ne njabar moo mën li ngeen dem alxatami daa dee xool barbut da ko waa barbut wasilal kale wal kale zahalikal wal kale xanaa yow ci boppam sa mag bii li nga ma ko bàyyi ñëw ci man da ko metti am na ku ne ci ligne bi allo waaw allo Oustaz waaw ñu ngi lay dégg yaa ngi en yaa ngi en alhamdulilah. oustaz dina leen si rafet na. ah tuddee nañ la ko. oui oustaz sant na. <laughs> jërëjëf jërëjëf. oustaz oustaz sa xol bi nice na. ah merci jërëjëf alhamdulilah. oustaz yaa coofe oustaz. <laughs> du ma jën nit laa. oustaz dama laa bëgg sama xol oustaz. ah loolu yàlla na ko yàlla boole rek moom kay weeru koor du ma ci bëggante loo doon laaj. oustaz sa mbagay baax na. ma ne loo doon laaj bul ma catu. oustaz sa mbase dafa wax dama koy wax. ma ne waaye bul ma bul ma catu rek. oustaz man daal dafa am benn problème boo xamante ne. Mhm. dama la ko bëggoon wax xëy na nga digal ma lu may def ba xam. waaye ca yow laay déglu luy problème bi. oustaz waaw man dama am benn problème boo xam ne. waaw. damay génn ak moom. waaw. mais daal li may génn ak moom lépp bëgg na ma moom. waaw trop. waaye daal saa yu feet ñëwee rek. rawatina korite. waaw. rek oustaz daf <laughs> du ko def dara dara dara dara dara. te du ma ko def ma jaaxle lool nag. yow noo tudd. man Fatou Thiam laa tudd. foo dëkk Fatou Thiam. maa ngi dëkk ci tribunal bi boo wàccee rek. Fatou Thiam limal ma sa ñaari xarit. allo. ma ne limal ma sa ñaari xarit. waaw. ma Fatou Diba. ak kan. ak sa far bi nga ne bu ñu demee ba korite jote rek wala koor gi ñëw dalay won ginnaaw laay woon ginnaaw ko def dara ma jaaxle nag ma gisee maa kooku nag moo la bëgg kooku moo la bëgg yow mi yaa wari ndax kooku bu demee ba xam ne ci koor gi mënu naa ñàkk bañ a bind message ay je t'aime tu me manques j'ai ta ci loo nekk fan nañuy gisee namm naa la bu ko jaralee mu won la ginnaaw ba koor gi passé mu delluwaat kooku rek moo la bëgg te kooku am koor waaye yow nga ne. oustaz kooku daf may bañ a jox yére korité. waaw ma ne. waaw ma ne amul la sax jox la yére korité fekk takk la war la jox yére korité li nga bëgg dafa yomb mu jox la xolam jox la xelam jox la léppam ba bëgg di la di jox alalam foo ko teg fexeel mu takk la mane ne. acca na dem bëgg lu yomb man dinaa dinaa bëgganteeg jigéen di jox sama doole. ba pare di jox sama jëmm yëkkati sama alal di la ko jox loolu day day mënta ne loolu mënta ne tonton mag waxtaanu koor ci yor yoru koor waxtaanu koor ci yor yoru koor ñi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan ci partout dans le monde ñu ngay daanu leer ñu ciy ziar bu baax ki nga xam ne mooy monsieur le maire Ousmane Dramé tey dama ko waraloo ci rajo bi waaye dama juumoon ndax nit ku yàlla baaxal la kooku bu joxee suukaru koor rek dañ ko war a teg na le waaye Fatou Bintou Camara nekk ca BICIS point e, dëkk ca zone B képp ku ko xam ak képp ku liggéey BICIS wari nga ndax dafay digge suukaru koor oustaz bi te joxu ko dara kon Fatou Bintou Camara wari nga ak képp ku sant Camara ñuy ziar di jëkkebe nekk ca Torino ak daam di ay promoteurs yu mag yoo xam ne nee nañu wax dëgg yàlla dañ ma bëgg a invité le 26 foofu ca Torino ma daa ñëw def fa conférence bu mag ci cant bu rëy boo xam ne dañ ko bëgg a sargal sargalee ma bu baax nee na nañ ñu fay def xubbate bu rëy da nga cay woo nag ndeysaan alaaji abu bilal kooku nga xam ne moom mooy Kébé te Torino ak Dame di promoteur samay taalibe nañu danaa leen seet si incha allah le 26 septembre ci seen xew-xew bu mag boobu nga xam ne dañ ko fay def te nag incha allah di ziar tamit maman Fall nekk ca Ridis daanu na leer démb bébé Fallou nekk ca Diourbel Didi Didi Ndaw ñoo ñëpp ay taalibe nañu Medoune Sey borom taw féex ak soxnaam bi nga xam ne mooy Yacine Ba kooku nga xam ne jàmm rek la bëgg ne ma El Hadj Abou kontaan naa ci yow man Yacine Ba chéri Medoune koor ci yor-yoru koor alxatami daa dee taxaw ne e batar buut parce que ni tey dinaa génn xam-xamu njabar bi nekkoon ci yow def ci xam-xamu diina sa bopp waaye sa mag bee di batar batar bi nga xam ne daf ñoo tëkku man Abou Bilal ak yow nañu préparé nag aar suñu bopp sinon ñun ñëpp dinañu fàggagal xam ngeen ne loolu métti na. batar batar dem gisi benn maamam buñ naan bat bat bat bate <laughs> bat ma nga dëkk ci dëkk buñ naan batuur ñooñu ñëpp ay waa butur butur nañu butur butur butur ngalle <laughs> ngalle ngalle ngalle batar <laughs> batar batar batar butur batar ngalle ngalle batar ci même xeet bi la xeetu butur butur butur ngalle ngalle butur butur butar batar batar batar buut buut buut butur batar mu ne ma la tey ki ne laam doon way ngan la Dior Diop ku ne Dior Fatim ñooy coloma Samba Yacine gis ñaamu konu Samba Ndeye Bat Géej ak Jogomaay mu ne ma la tey Youssou Ndour naan Birame Jéema yaay Tawa Jaay Awa Jaañ Birame Jéema konu Yacine Mbaye sa Jéema Kumba Jéema Jaba seen bi suba jéema ba batar noonu la dàkkantalu batar buut ak batar batar seen dàkkantal batar batar batar batar bu tur bu tur bu tur ngale ngale ngale ngale batar bu dee ci arab la nga ne sëtal wala wala balax balax balax duqur duqur duqur mu tax mu tax ma tax ma tax duqur <laughs> tonton mag waxtaanu koor am na ku ne ci ligne bi allo. allo waaw ko kan la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah a ci tëngeej jaxate yaa ngi direct lan nga soxla ak loo bëgg laaj. waaw oustaz xanaa di rafetlu euh, la wax bi jëmba si tëngëj macha allah. alhamdulilah alhamdulilah ku nekkaan ciy wax. jërëjëf jërëjëf waaye foo amoon ay soppe waaw. am na ay noonu. waaw waaw. ayca. ñoom Didier ak Abdou Cissé yëpp ak Mbaye kenn mayu ma jàmm. lu ñu wax. lenn rek laa bëggoon oustaz. waaw. nga defal ma kiraama. mais mais jaxate. waaw. xanaa gisoo xaal bii ma jël sama loxo teg ko nga seetaan en direct. moo ne moo tax ma bëgg nga defal ma kiraama ak noon yi fii samay noon yi dégg mooy xaal bii nga génnal ma ci nen ñëpp ci loolu rek laa bëgg da nga bëgg xaal bi may dagg ma génn ci nen ak lan bu dee xaalis la ma génn ko ci waaw bëgg génnal ma ci nen ah nen nga bëgg nen rek kon parce que ne tey xaar bii su ma ko daggee dinaa ci génn ñetti nen génn ci ñaari junni génn ci len loolu rek laa bëgg kon coupel coupel téléphone bi te dem seeti say mbokk tonton mag waxtaanu koor ci yor yoru koor waxtaanu koor ci yor yoru koor alxatami jaamu yi nga xam ne ñoo toppoon batar batar daa dee ki nga xam ne mooy batar buut man ma nekk ci digg bi alxatami nekk ci kanam batar batar indi ay mbokku géwalam ñuy xas ki nga xam ne mooy batar buut di ko wax ci ay arab waxu arab naan ko tekki woo dara bàyyi nga sa askan ak sa mëneef dem toppi ñoo xam ne dañu nitu dara ñu ko koy wax ci arab naan ko wa zikalla anakul kiila zuna wa miinakal tarikal tarikal fifina al kuuna sambana wa kuuna cheikhu la zaniwul kuuni al tarikalan ci arab batar batar batar batar xas ki nga xam ne mooy batar buut waaye batar buut am ful ci arab daal koy tontu na ko wisemal kala al tuuni wal wuusi wal batar batar gudum balle batar batar batar buut butur butur butur butur butur butur batar batar <laughs> dara ko koy ñaawale waxtaanu koor ci yaru yaru koor <laughs> pour mettital ustaas yi rek ak naqarala leen su ko defee guerre sainte bi nga xam ne mooy al badar waroon am ci diggante batar batar ak batar buut te ñaari famille yi nga xam ne ñoo séq batar ak buut ngeen baal ma xam nga sa yaram bu tàngee rek tonton mag yaakaar naa ne am na ku ci ligne bi am déet bu fekkee ne amul ku nekk ci ligne bi ay ca jël ko en direct ko kan la Oustaz Abou Bilal na nga def maa ngi fi mën na sa taal bi bu dëkk ci am tudd Kati Samb waaw Kati Samb yaa ngi ñu seetaan en direct maa ngi leen di seetaan oustaz man yow rek laa gëm. ah alhamdulilah. ndax yow li nga def ci man nii. waaw. gëmuma keneen. alhamdulilah. oustaz man maa man maay sa présidente soppay oustaz Abou Bilal bu Tiwaawan. ah kon Tiwaawan nga dëkk. Tiwaawan laa dëkk maay sa présidente daayira bi. noo tudd. maa ngi tudd Kati Samb dëkk ci Tiwaawan. ah Tiwaawan nga dëkk. waaw fi laa dëkk oustaz. waa Kati. waaw. ah gars yi nañ yaa ngi gis xaal bi. ah oustaz man looloo ma jaaxal. xaal bi ci boppam nag comme que am na ku dugg ne naa ci génn ay nen muy soog a gëm ne sëriñ laa. Mhm. yow lan nga may digal yow mi nga xam ne sama taalibe nga ma def war ma bàyyi. oustaz defal <laughs> ndax man man fii. waaw ci laa dëkk waaye oustaz kenn bëggu fi. nga ne. kenn bëggu fi kenn bëggu la fi bëri woo fi fan. nga lu tax. ah man de dafa am benn. soxna su tudd Yacine Sy. waaw moom mooy présidente Sopp Sa Ndiogou daayira Sopp Sa ah, Sopp Sa Ndiogou daal ñoo may xeex biir Tiwaawan. ñoo lay xeex. Uh-huh. waaye ñun moom ñun moom ñun sa daayira yow la mu àndal. ma ne waaye pour ñu gëm la dañoo bëgg nga def kéem taanu xaal boobu. ah gën la gëm. waaw loo ci mën daan na nga ko ci def. Kati sàmb waaw ma ne coupé te nga xam ne Sa Ndiogou ci boppam. waaw balaa émission bi jeex man kéemtaan bi dinaa ko def moom ci boppam. fii guddi bu tëddee nelaw bu lambee bu lambee boppam lamb ndiggam ba lamb ci ginnaaw ndiggam dana gis ab geen ah dafa lool de. danaa ko def golo yow jabaru saa saa njóog bu fekkee yaa ngi ñuy seetaan bu saa njóogu nekkee golo ci guddi gi na nga ko bàyyi ñëw fekk si ma ma takk la ñaare dugal la ci kër gi <laughs> alxatami jërëjëf waxtaanu koor ci yor yoru koor bi nga xamee ne nag ñi nga xam ne ñooy tagg batar batar daa ñëw di xas mbokk Batar Buudi boobu alxatami ndeysaan en tant que professeur tontom ak alxatami mu ngay ut jàmm naan leen wasina kala kala ala si wine kala mbokk la rek yéen a bokk benn ndey waaye bokk leen bàyyi soxlul wa kala kal kal kal yàlla yàlla yàlla altari kal yàlla yóbbu ma Banjul ma seeti jële ba Kuyaate sama taalibe boobu moo xool lu may may ma daal di dellusiwaat ci plateau bi fifi Samba ayca kaay ayca fifi kaay